dikkati naa octobre rose weeru xeexu cancer vox populi jox kàddu madame Gomis mu naan nga la yéen ñi nga xam ne da ngeen am woppu cancer jàpp leen ni wopp la comme yeneen wopp yi ngeen xeex ak wopp gi ngir seen njaboot xeex ak wopp gi ngir mu bañ yóbbu seen bakkan waaye tam xeex ak wopp ji ngir wan ko ni duñu bàyyi mukk ñu nag yow ba weer péng le point ak ci naan man Bougane Gueye Dany kay ma nga doon porte parole ñi am woppu cancer le mandat kaay naan man ci dëjug moom i bàllaago bi la tribune yéen naan man keroog ci dëjub soxnaam moom Bougane Gueye xamante ni day ma ngay plaider ñi nga xam ne ñoo am woppu cancer def ko nag ci kanamu premier ministre Amadou Ba moom bugaan naan kon Amadou Ba juróom-ñeenti at a ngi nii moom moom moomi di xeex ak woppu cancer li tax ma wax ko nag mooy dama laa gis yow Amadou Ba nga ñëw ak sab insigne boo xam ne nag mënees na ko naatable ak bu octobre rose ma xam ni nag yaa ngi fim na ci xeexu cancer gi bugaan naan kon xeex gi bu leen ko wàcc de def leen lu ngeen man ngir wàññi ñi nga xam ne ñoo ciy faatu am ngeen moyen yi mën ngeen ko waa grand place naan moom jiital gëm sa bopp daal dinay waxal ñëpp ñi nga xam ne ñoo am woppu naan leen seen responsabilité la yéen nguurug Sénégal ndax na képp koo xam ne yaay sàmm lépp loo xam ne moo jot ka muy sàmm moom moo war faj ko naan leen bari na ñoo xam ne am nañ woppu cancer ci réew mi su weesoo ndogalu yàlla goo xam ne wàcc na seen kaw ñàkkuk faj ak prise en charge boo xam ne baax na dina koy waral naan kon maa lay yóbbu ci président de la république Macky Sall di leen wax ngeen des seen kéemtalaay kàttan ba wàññi ñi nga xam ne ñooy faatu ci woppu cancer gi am ngeen moyen yi mën ngeen ko soowe leen bakkanu doomu aadama yi moom bugaan naan ci ñëpp yam ci réew mi na oyof waaye faj gi it teel ci réew mi balaa muy avancé def leen ay campagne de sensibilisation wax lan moo tax nit nag mën a taxaw dëgg-dëgg ngir am wopp cancer ëllëg def leen ay campagne ngir wax dëgg-dëgg nit yi buñ yëgee lii seen yaram nan dem saytu ji xam ne cancer mi ngi leen di dugg teg leen ay programme ngir nit ñi mën a xam dëgg-dëgg lan mooy wopp cancer bugaan gay dani naan leen lii mooy dëgg wal fu ko dajee naan leen fi mu ne day fisc bi dafa daal di ñàngal fas kanamam ñi ngi def ay redressement moment yoo xam ne fi mu ne entreprise si doy na waar lool fi mu ne bu suuxee nag bu mu leen yéem l'enquête ko dijee naan man fi mu ne nag ku nekk ministre ci réew mi bu mu leen yéem ay surprise yu rëy rëy moo war a am ci gouvernement goo xam ne ñu ngi ko war a taxawalaat ci réew mi yéene kaay bi naan man équipe bu bi bii tey altine gii boo moytul dina yemb ay ministre yoo xam ne yu ñu ràññee woon nañ ci gouvernement gii ñu génn soo moytuwul daal danañ buuse l'observateur nan man boobu Aly Ngouille Ndiaye ma ngay wax turbine yéene kaay naan kon Aly Ngouille Ndiaye kay ma ngay xam le ni fii ci Sénégal Sénégal bari na ay souffrance métit ci réew mi bari nay injustice technique yi loo xam ne daganut waaye tam bari nay xaajaloo yoo xam ci réew mi fu naan leen moo sukkandik sukkandik tey jii dey ña nga xam ni ñoo bootoon président Macky Sall séq moom système bi tey ñoo nekk nag di xëpp suuf ci cere ji di xajamal ak di xas système bi ña nga xam ni nag tey ñoo si su daal di mer daal dina nuy wan ginnaaw seen àndandoog président Macky Sall la nga xam ni nag def nañ ko ci loxo ci système bi ñu daal di koy weddi vox populi naan maan waaye boobu waa parti socialiste yéen nekk ca tëngee nee ñu ànduñoo Amadou Ba tey ànduñoo ak moom ëllëg moom Amadou Ba moomee dem ca ndawuk banlieue ba di leen dig ba maar day taali turbine yéen kaay naan man foofu mu teg tànkam moom Amadou de du baax ndax ba parcelle des parcelles ba tey xale ya musuñu koo may lenn xob moom daañu ko sànnil ñëpp ba mu des Amadou Ba looloo leer l'enquête nan man diggante parti socialiste ak AFP jiite nañu parti ba tey jii ñuy fali buur tey moom Moustapha Niass Assou Ndiaye moom lañ ko wutul ca délégué régional bu parrainage bu Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu Kaolack ni fas nañ ko yéen a jébbal Amadou Ba niki démb door nañu parrainage ba ca diwaanu Kaolack diggante département ba gox ba ñëpp ñëw ngir jàpp ci parrainage amadu Ba bi tribune yéen a kaay naan kon ma nga dooree Parcelles Assainies de foo xam ne nag ma ne la Amadou dafa mës a nërmeelu waxtu woowu Thierno Alassane Sall ci 24 heures yéen a kaay naan ma ne la ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi tey jii lu leen wan gëmm leen tëxlu ndax nag soppileen mooy li gën ci senegal yoor yoor yéen kaay jox kàddu Abdoul Mbaye muy xam le ni Sénégal daal ci bombe à retardement la nekk boo xam ni maar day te à tout moment nag lu ne mën naa am ci réew mi le point yéen kaay naan man en tout cas Abdou Karim Fofana moom ma ngay xamle ni Amadou Ba daal mooy yoon wi moom Abdou Karim Fofana daal di soobu ci làng gi moom Abdou Karim Fofana di woo mobilisation ci diggante militant Benno Bokk Yaakaar ngir ñu taxaw bu baax a baax candidature bu amadu Ba mii ngir mu am ndam ci kanamu jenes féminine bu APR bu Ndakaaru ci la ministre du commerce yi yile kaddu naan leen ndam li du génn Benno Bokk Yaakaar tribune naan kon parcelle ngeen ko doore te parcelle baaxul ci Amadou may lajj waa grand place naan maan Mané Diaw bu ABS 2024 day ma nga def ay action citoyenne ca Pikine taxaw nag ci tànku Abdoulaye Sylla mi nga xam ne moom la ngembul ci élection présidentielle yi l'observateur naan maan waxtu woowu juróom-ñetteelu victime day daal dinay faatu ci gaz ba kalaate woon ca Derklé l'info yéen a kaay naan maan moo taxit Barthélemy Diaz mer na ba futtu mere nag total ak état bu Sénégal xamal leen ni gaz yu bon yi nga xam ne day kalaate ci kaw askan wi ne ko nguurug Sénégal jël ay dogal daal di leen di tàbbal géej nu mu gën a gaawee Barthélemy Diaz Diaz naan daanaka nguurug Sénégal fulaalul faalewul it ñi nga xam ñooy askanam su ko defoon ma ne la gaz yi nga xam ne day faat askan wi daañu fexe nuñ ko jëlee ci marché bi laataa muy gën a faatu bakkan vox populi naan man diggante Israël ak Hamas guerre ba day miti na ba lu jege daanaka junni ci doomu aadama faatu nañ ca juróomi téeméer israélien faatu ca ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci doomu Palestine faatu ca lu ñeent junni ci gaañu gaañu am ci ñaari côté ya Aïssata Tall ministre bu Sénégal bi ñu dénk bitim réew daal di xamle ni am nañu njàqare ci mbir mi yi nañu séparé état yi ngir jàmm mën a am nax nag fitna nga xam ne am na ca bu buñ ca waxul day mën naa la ngaamu ba laal réewum Sénégal réewum Sénégal gi Tribune Sport di ma xamal ne combat diggante Ama Baldé ak Modou Lo mi ngi xëy neex waaye nag nit ki démb aada faas daal dina yóbbu teer zos L'Obs naan kon réew mi lu ne fa am ca ndar géej xale bu góor bii dafa naroon sàkku soxna si benn paa boo xam ne am na juróom-ñett fukk ci ay ba paaba ba ko mu daal di koy dóor juróom-ñaari yoon jaasi libération yéeni kaay naan man benn xale buy dund lañu fekk ci mbalit fii ci yoof ñaari mag ak rakk daal di faatu daal di tàbbi ci teen ca Bignona police bi daal di jàpp fukk ak juróom benn woto yoo xam ne dañ leen sàccoon fii ci Ndakaar doon leen yóbbu Bissau yéene kaay bi naan man daj dëpp gi moo ngi ni waa ji day ab coroom moo daal di ëmb ba mu ko yégee ni ko aworteel xale bi bañ mu jël ku rëkk ko ba mu nooy nepp daal di faatu ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm